ko ci Sénégal mooy famille ñoom dem Demba Guissé famille bi may dem nag tiituma fa parce que nit ñu baax laa fay fekk buñ nee diw baax na nag mbokk yaa ko wax te man sama jëkkër kese kese kese may na ma fit wax dëgg fa yàlla ba pare yaayam nekk nit ku baax nag nit ku ma bëgg nit koo xamante ne wax dëgg fa yàlla bëggul lu lul ma daagu këram kon nag maanaam tiituma ci kër googu daal ah, mais dama gis bi sa tooma di woy di Ndeye Adama Jali nga tuur ay xewal mu mel ni sa xel dafa dem si sa waajur bu jigéen fekkewul sa bés bu mag waaw xam nga rek sama xol moo fees dafa neex nga xewle ñu lay woyal ci sa aada ak sa cosaan dara dàq ko loolu tax nag sama xol fees sa xew bi Ndeye njaay euh, ki nga xam ne mooy Mame Ndiaye nga ko magale waaw moom laa ko magale waaw am ci fierté lool rëccu ma ci lenn tamit maa leen gën a kontaan yéen ñi nga xamante ne boobu ba tey yéen a ngi fi maa ngi leen di sant tamit di leen di gërëm aw ma seen fay parce que boobu ba tey yéen a ngi fi sonn ba dee te ku ne xam ne temps bi ngeen fi def chaque instant ngeen di vidéo di jël lépp yéen amuñu seen fay ñun suñu suñu euh, maanaam ñun tey jii bu ñu yàlla bu ñu ñëpp xamee ginnaaw yàlla yéen am ngeen ci wàll parce que yéen a ñuy dugal ci seen siti ah mais noonu la noonu la yéen amuñu seen fay yal na leen yàlla fay seen liggéey bi ngeen di liggéey yal na leen ci yàlla jox lu kawe seen jot ci barke Seydina Mohamed amuñu seen fay alors mbokk internet yi ñu ngi toog ak urul ay Ayni moom tamit mu bokk ci jàmbkatu diw yi waaye mu mel ni moom mu xawul bëri ci coow li alors Ourul ñu ngi leen. maa ngi leen di delloo ziar bu baax a baax leen jox seen wàccuwaay. Euh, ñu ñëw fekk la ci sa Anytime mu rakk muy Ndeya Beauté ñu bëggoon xam lan moo waral teewaay bi parce que gis nañ leen ci réseaux sociaux yi ku nekk di def sa liggéey. dëgg la dëgg la non xam nga ay nit moom ñu bokkee liggéey amaana mën nañ na bokk ngeen lépp bu teewal bu xewlee li gën a rafet mooy nga teewal ko ci bësam et mu nekk ku ñàkki ku ñàkki ñaan aussi. parce que bi ma amee rek daf ma woo directement téléphone boole ba talewu ma kenn na ma dama bëggoon nga ma sama xew loolu moo fi indi suñu teewaay. gis si réseaux sociaux yi ngeen nekk ci seen liggéey jàmbkatu diw yi xuloo bi coow li ni mu bare tey ñu gis ñu gis la ci xew bi alors est-ce que duñu posé question lan moo xew. non parce que nit ñi ñoo comprendre rek ñun ay sœur lañu te jàmm la ñuy sekk te moom la ñuy sekk parce que tey bu ñu dajale woon dañuy dàq jàkk diw ñun ñëppay ànd ñu mënul tàkkali ko dañuy ànd mu rafet rek hmm, gisuma ci benn benn benn problème en tout cas man awma ak kenn problème vraiment waaw vraiment man waa dara parce que ni ñuy wax a tout moment rek boo da ngay si ci dara mu liggéey bu ëpp moo gën tout le temps génn xiiroo ŋaayo et tout parce que bu fekkee ne am nga liggéey boo xam ne da ko bëgg def soigneusement il est préférable nga toog sa coin rek nga liggéey xaar yàlla. Mame Ndiaye Savon moom mooy magale bi rul ay ni di jàmbakatu diw Ndeya Beauté tamit di jàmbakatu diw alors loolu loolu noo ko jàng non Mame Ndiaye sama sœur la sama anti stress la. man dama ko bëgg ba moo xam ne dama ko bëgg vraiment sama anti la ndeyaa sama sœur la tamit wax fa neex yàlla aw ma ak ñoom benn xaar ma yàlla jàmm ak salaam ku xew la dama lay demal bu ma xewlee aussi damay ñaan yàlla ñoom ñëwal ma te jàmm ak salaam lépp rafet la daal. ulul moo mën moo ëpp doole loolu la ñu wax. Ah, ñëpp a mën ay taamu rek ku nekk ak ñi nga ñi nga xamante ne ñoo féetewul ma leen di wax ñoom xam nañ ne waaw ñoom xam nañ ne maamun maa ëpp doole. <laughs> ñoom xam nañ ko ñoom dama leen di tendance chaque jour dama leen naan yéen ak ñëpp ak jàmm maa leen gën a baax maa leen gën mën la mais lépp ci jàmm ak salaam rek kaf reetaan et que ku ci nekk mën nga sa liggéey moo tax nga am sa communauté et que ku ci nekk ak ki nga la doy ak ki nga doy loo rek da dem ci moom mais ñoom ñëpp mu rafet seen liggéey rafet na aussi mhm. Mhm. ko ñaanal di ko ñaax parce que naa ne du ko du ko du ma ko du ko sas sax ndax am jom la ndax jigéen nga mel na a mel mënoon taxawaal mënoon def lu leen lu neex lu yàlla nga takk sa ndigg ubbi sa boutique ne da ngay liggéey loolu sant yàlla kon da ngay xam ne kooku borom jom la dañ koy ñaanal rek sëyam bi barkeel yàlla defal ko ci xéewal sutura mu bokk ci sëy yi ñuy takkee ca ah. kontaan naa <laughs> merci. alors soxna ñoo maa ngi leen di fay. <laughs> ñu la fekk ci en bi nga xamante ni moom la Ndeya di amal euh, ñu bëggoon a xam tey lan moo waral teewaay bi ba aussi ngeen bokk tamit ci li nga xam ne moom mooy hôtel. waaw Ndeya moom suñu sœur la man bokk sama jumelle la parce que. nit ñi ñëpp nee nañ dañoo niroo Ndeya sama sœur la sama xarit la sama mag la sama sama lépp la sama mariage tegaguma ko woon bët mais daf ma taxawu fépp mo presque waaw sonn ma benn yoon donc mënu ma man tamit lu dul delloo ko teraanga bi Ndeya dafa baax xolam rafet na donc c'est très normal mu am lu bés bu mel nii franchement en plus elle est trop belle. gis nañ la nga fecc ba ñàkk lu waral. waaw dama kontaan parce que mariage c'est sacré. nit ku nekk ñaan na yàlla buy am jëkkër na def benn yoon xew mu nekk las xewam donc tey jii bés bu mag la donc c'est très normal mbégte la daal dañoo kontaan rek. Mhm. merci beaucoup lan nga koy wax tey ci mariage bi nga xam ne dugg na. pardon waa ndeyaa mariage bi na góor góorgóorlu xam ne sëy neex na neexul dañuy góor góorgóorlu rek xam nga fii moom suñu bëggantee rek quand c'est réciproque sëy bi day mës a ba faw. ba ilaa yow din sax laay wax mais maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla may ko si njaboot yu barkeel sëyam bi waaw gën a neex si sëy yëpp sax gën a neex sama bos <laughs> parce que daf ko mérito franchement uh-huh, merci beaucoup allez on va bisous c'est bon Adji Mass ñu ngi lay nuyu. ñu ngi la fekk tey ci Anytime bi nga xam ne moom la Ndeya Beauty di ñu bëggoon a xam lan mooy seen relation. ah Ndeya xanaa nag nekk nag suñu nit bëgg ñu ñun influenceuse yi ba tax na bisam bi mu boole ñu ci dagg ay hôtesse sam jox ñu ñu fa yéene koo ñëwal bokk ko moom li nga xamante ni moo di bonheur bi ak ambiance bi di ko souhaiter xër a ménage. lan nga ñu mën a wax ci seen diggante ba tax tey mu jaral la nga bàyyi li nga doon def lépp. ah comme ni mu ko jaralee ñëpp nan Ndeya nekk na koo xamante ni dafa respecté ni ñi xam nga. ndax léegi kenn amatul temps le temps est trop cher ñu ci télé yi ñu ngi internet yi ñu suñu liggéey personnel mais bu respecter ni ñi jox leen cër boole leen boole ni ñu ci boppam ñun dañ ñu ñëwal ko loolu moo doon ñëwal ko. lan nga koy wax tey ci sëyam ñaari xale lañ leen macha allah te xam naa ni tamit dina sëy ndax de nee naa ko doon sëy te ni ku nañu ne vraiment Pendo Guissé Ndeya ku baax la moom xam na Ndeya